mbokk yi maa ngi lay ziar maa leen di bu baax baax di la nuyu lu bari waaw vidéo bi nag maa ngi ko defal ñi nga xam ni dañuy waaja a def euh, def examen guida ci patent bi ak sax ñi def ci euh, patent ci ci ku ci yenn saa yi dañuy soxla information yi euh, dana expliquer pneu yi codice yi nga xam ne moom ngay gis ci pneu bi bu ci nekk lu muy wundu codice yi ñu tàmbali ci pi bi nag du toujours lay am am na pneu yu bari ko amut lettre pi bi. Euh, lii du piis tamit mën naa am beneen code pii daal euh, lii nii code bi code bi ne fii nga xam ni yenn saay pii lay doon yenn saay beneen lay doon typologia del del pneumatico la euh, typologia la mais en même temps maanaam li ñuy wooyee symbole codice spécifique de la caractéristique du uso maanaam pneu bi pneu bi nga xam ne moom nga jënd noonu war ko mën sa sa sa oto li nga xam ni moom lañ koy war a dooyee maanaam caractéristique douze mooy oto bi ban benn xeetu oto moo ko war a jël bu dee lettre P bi nga xam ne moo lañ gisoon indica uno pneumatico ad uso esclusivamente per auto vettura pneu boo xam ne auto vettura kese kese moo ko war a jël boo waroo ko def ci camion waroo ko def ci beneen véhicule bu dee auto vettura bu dee MST MST è riportata per impiego misto su strada e waaw véhicule yi nga xamante ni dañ koy faral di utiliser. ci euh, nga xam mën nañ ko mën nañ ko def ci strada mën naa dem ci strada mën na dem ci fuori strada un misto bu dee NHS per pneumatici che possono essere usati solo per competizioni pneu yi nga xamante ni pour compétition pour course yooyu moo ko tax a jóg cycle euh, bi moo ci nekk mooy code boobu la dicitura 108R indica pneumatici ricostruiti oto r mooy pneu boo xam ne dañ ko defaraat dañ ko defaraat lépp ci indice boobu nga xam ne moom laa doon expliquer léegi euh, fi ñu def pi yooyu yi ma tudd yëpp mën nañ mën nañ ko fay def kon yow mi nga xam ne auto a nga yor pii bi kon dana baax ci yow léegi ñu jàll ci beneen 215 bii nii 215 bi largesse in millimètre la maanaam yaatuwaayu véhicule bi pneu bi pneu bi en millimètre euh, bu ñu waxee largesse in millimètre mooy li ngeen gis nii gis nga yaatuwaayu pneu bi tàmbale ko fii ba fii en millimètre en millimètre 215 millimètres bu boobaa bu ñu defee deux cent quinze kon deux cent quinze millimètres doon la gesta del pneumatico in millimetro mu ñëw ci soixante cinq bi ginnaaw boo passé barre bi soixante cinq la sa altezza sa rapport hauteur largeur raport la boo xam ne da lay nga mën a xam maanaam lii nii fii tàmbale ko fi curseur bi ne ba ci kaw largeur bi nga man koo xam lool nag rapport bi ngay utiliser bu def benn calcul euh, maanaam bii nii gis nga altezza spalla li pour nga trouver ko nag pour nga trouver auteur bii nii euh, code boobu ab ab rapport rapport mooy loo ne dañ ko utiliser pour def benn calcul léegi pour nga trouver ko da def deux cent quinze deux cent quinze fois zéro virgule soixante cinq deux cent quinze fois zéro virgule soixante cinq lu lay jox mooy nekk auteur bii nii nañ ko essayer ci machine calcul euh, bu ñu jëlee machine bi ñu def deux cent quinze deux cent quinze per wala fois zéro virgule soixante cinq da def zéro def virgule def soixante cinq parce que millimètre nga koy def soixante cinq mu jox la cent trente neuf mooy cent trente neuf millimètres kon diggante bi cent trente neuf millimètres la fii ba fii cent trente neuf la mooy mooy hauteur bi guddaay taxawaay guddaay bi mooy hauteur bi rek taxawaay bi guddaay bi diggante fii ba fii cent trente neuf virgule soixante quinze euh, bi. R bi mooy euh, disposition disposizione delle telle mooy pneu bi ni ñu ko liggéeyee telle yi euh, plastique bi ne ci biir mooy li ci biir rek li composé pneu bi ni mu tegaloo bu dee raja rajaale la wala jagonaale loolu am nañ ci image bi gis nga bu dee R rajaale gis nga pneu ni ñu tegaloo ni la ni la bindoo comme nii bu fekkente ne nag jagonaale la ni lay bindoo gis nga ni ñu ko liggéey fii xam nga bokkuñu am na toute différence Euh, léegi bu dee R rajaale la bu dee D jagonaale mooy corrigé boobu ngeen gis léegi muy R bi léegi bu ñu ñëwee ci 15 bi 15 bi topp ci R bi mooy diametro del cerchione in ci maanaam diamétre cerchione mooy jante jante bii nii diamètre am boo ne diamètre mooy nga euh, fii fii ba fii loolu mooy diamètre bi fii ba fii mooy diamètre bi xam nga ab rond la léegi fii ba fii mooy mooy mooy diamètre bi. diamètre bi nag une pollice la du en centimètre du millimètre mais pollice la benn pollice uguale 2,54 centimetri benn pollice benn pouce booy jënd télé naan la télé bi 55 pouces la ñu bari dañ koy dégg mais xamuñ lu mu doon pouce bu ñu ko waxee ci télé mooy diagonale ba bokk ko jëlee ci koñ bi ba ci koñ bi suuf koñ bi ci kaw a droite ba ci koñ bi suuf ak ci à gauche euh, euh, moom la nat natt naan 55 euh, pouces léegi nag pour nga xam ñaata centimètres la loolu da nga koy multiplier par 2,54 mu jox la centimètres yi. léegi nag lii nii diamètre bi ba fii ba fii euh, une police yi moom la ñu jox euh, quinze euh, pouces quinze pouces ñoom dañoo compliqué mais mën ko def centimètre bu ko defee nit ñi gën ko mën a comprendre ñu ñëw fii ci quatre-vingt-quinze bi quatre-vingt-quinze mooy codice di carico codice di carico mooy li nga xam ni moom la véhicule bi moom la pneu bi attan codice di carico ab code la nag ab code léegi nag pour nga xam lu mu dëgg-dëgg da dem ci ci ci tableau bi tabelloo ne am na tabelloo ne xam moo la koy wax pneu moom tabelloone baa ngi nii tabelloone bi dafa ne attention dafa ne euh, dafa laa jox ay chiffre léegi nag ñu ci chiffre bi nga xam ne moo nekkoon ci euh, ci sun image bi yaakaar naa ni quatre-vingt-quinze la ba quatre bu ñu ci tableau bi xool quatre-vingt-quinze dañuy wër ba gis quatre-vingt-quinze mii ne quinze lay 95 day wax ni pneu bu nekk peso per ruota 690 kilogrammes maanaam pneu bii nii nga xam ne moom la ñu xool moom li mu attan ci poids maximum mooy 690 moo waral sax ñu wax ne booy chargé ci oto ay bagage nga tas ko bu ko defee pneu bu nekk am lu mu yenu mais boo jëlee lépp yóbbu ko benn côté lépp benn pneu moo koy kaari kaari te bu ëppee li nga xam ne mooy corrigé di kaari kawam day toj kon pneu bi 690 kilo euh, bi boo am booy jënd pneu. tapé tabellion bi ngay screen xool ko nga xool codice boobu bi mu correspondre nga xam ñaata kilo la sa oto attan ñu daal di ñëw ci lettera AK lettera AK codice di velocità la vitesse bi nga xam ne moom la pneu bi mën a daw nga xam ne waroo daw ak moom lu ëpp vitesse boobu boo monté pneu nga xam ne lii la mën a daw maximum yow fexeel ba bu daw lu ko ëpp léegi tabellion bii nii daf lay wax ni AK mi ngi correspondre 210 kilomètres à l'heure kon pneu bii mën naa daw ba 210 kilomètres à l'heure bu fekkee daw nga lu ëpp lii mën naa toj parce que daw nga lu ëpp li nga xam ne moom la pneu bi mën a daw am solo la dangeen ko bàyyi xel ci seen am na oto yoo xam ne seen N la 140 kilomètres heure à l'heure rek a daw boo dawee lu ko am problème. Euh, bu ñëwee fii MSC bi mooy pneu boo xamante ni hivernale la pneu boo xam ne mën naa dem ci fango mën naa dem ci ay poto yooyu mën naa dem ci neige tamit li moom loolu mooy MS euh, MS bi nag. Euh, constructeur bi moo ko ci def mais bu fekkee pono bi daa jàll daa def ay test bañ xam ni pono bu homologué bu kii la ci kaw fi daam benn fekkoone benn genre dessin boo xam ne day représenté neige waaw ñuy def boole ci defaat ci ms encore waaw mais lii daal mooy conditions yi nga xamante ni mënoo ko ñàkk xam ci booy jënd pono wala booy changer sa pono waaw bu ñu la joxee bu bokkut ak yii nii euh, par rapport ak sa sa véhicule bañal bu ko bu ko jël